mbokk yi ñuy seetaan man maa ngi tudd Thierno Moussa Sow nekk responsable politique am Bayax ngeen gën ma xam ci réalisation ngeen gën ñu xam tamit ci ay xalaat yoo xamante ne dafay jëriñ ab gox di jëriñ am réew ah loolu moom kenn du ko werante tey jii nag ñu ñëwoon indil leen li nga xamante ne sénégalais yëpp dañ ko bokk te njiitu réew mi teg ko ci seen loxo loo sa rek loo jege nga mën cee gis sa bopp jërë ngeen jëf. table bi li ko waral mooy sénégalais yi ñii ngi wax ay tali ñi ngi wax réalisation président yi nekk jam ñaajo mais lii mooy loo xamante ne bépp sénégalais yaa ngi koy gis ci sa panier bi ngay demee marché wala li ngay jox sa soxna mu ci dem marché ba ci chauffeur bi kiy jënd gasoil ngay jënd lépp xam nga gasoil li mu doon jar defal nañ leen prix yi xam nga ceeb li mu doon jar xam nga sukkoor li mu doon jar te comme dañ ko def te sénégalais xamu ko message bi jàllul ñun ñu war ko jàllale sénégalais yi xam ko moo tax ma gëstu lii ne leen wax nañu dëgg lii la président def ci réew mi. est-ce mhm. euh, ay leer jërëjëf ay leer am na ci gannaaw bi ñu sooboo. ci référendum bi xel yëpp jiixi jaax déggoon ngeen ñu ne acte yi ñuy wote dafa am affaire góor jigéen ci cinq ponk yi ci la ñu am nag kàddu bu bàyyi ko ci kilifa yi mu egsi ci man direct amul intermédiaire ku mel ne monsieur ministre l' intérieur Abdoulaye Daouda Diallo ñu koy nuyu en passage mu daal di ñu woo xamal ñu ne réew mi réewu jullit la réewu chrétien la réew la boo xamante ne kenn du fi wote loo xamante ne dafay bokk ci fi góor jigéen ñu gis ku mel ne sëñ Abdou Aziz Senior def li mu def ñu gis ko aussi Touba ci dëkk bi ñu yaakaar ñu gis relation ak sëriñ bi ñu xam ne kii fi mu teg tànkam lool la mu ne ñu président bi Macky Sall la tudd premier ministre mi ngi tudd Mohamed Boun Abdoulaye Dionne man ministre de mu tudd Abdoulaye Daouda jàll boobu dëkk nan la ñuy wotee góor jigéen mu posé ñu question boobu ñu déglu ko mu doon loo xamante ne doy nañu yëmu ci waaye mu yebal une forte délégation boo xamante ne 14 heures mooy lañ ñëw sama kër bu ñuy egsee liñ jëkk def mooy ñaan ñu ndox ñu julli waaw délégation boo xam ñëpp ay mag lañ ay julli lañ. buñ la waxee te ëppoo leen déene gënoo leen gëm yàlla dinga nga xam liñ la wax sama sëriñ. jërëjëf monsieur le maire daf ñoo woon ne moom sénégalais la liggéeykat la doonte ñi ngi wax rakku njiitu réew mi la waaye moom li mu gëm mooy militant numéro un la APR boo xamante ne suba ngoon day dox ci lépp luy tax nit ñi jege. Euh, askan bi jege seen président <clears throat> ñu mën a liggéey ak seen président luy avancer réew mi mu dalal ñu ak délégation bu rëy nit ñu responsable mu déglu ñu xamal ñu ne lii ngeen di def nii président daf ko war a yëg parce que na sa réalisation yi président tegagu ci bëtam déggagu ko ni mu ko war a déggee te dinañu ko ko àggale xamuñu woon tamit ne réaction yu toll nii def ngeen ko niveau du Diender dama lay sant nga teg fii sa loxo ànd ak président liggéey ndax boo liggéeyee di nga dimbali Jandeer li Jandeer soxla yëpp président dina ko teg sa loxo nga teg ko ci loxo yi waa Jandeer loolu mooy sunu relation muy nit ku sincère aussi. jërëjëf mooy courant bi fa manqué ñu fexe mu ñëw. ndox mi fa manqué mu fexe ñu fexe mu ñëw sécurité amu fa ñu fexe mu am fa parce que commune bu toll ne Diender du poste de santé du courant du du du poste police du gendarmerie du sapor pompier xam nga loolu baaxul ci ab dëkk boo xam dafa may banque am yëpp ñu soxla tamit dëkk bi ni mu toll amul lenn gis ngeen lu fa nekk réalisation ñun ñoo ko fa def sunuy sunuy moyen bopp man maa fa def mais bu ñu demee nag ba gis koo xamante ne. ndawul président la militaire président la kuy informer président la te kuy xëyal président la mu nangul ñu ne dëkk baa ngi ci jafe-jafe dinaa ko ko àggale muy ñaar ñii comme ni ma la wax ministre l'intérieur nga xam ne wutul poste jandeer euh, monsieur le maire Aline Sall wutul poste jandeer xëccoowuñ fa dara waaye dañoo bëgg koo xamante ne day exit taxaw wax jafe-jafe jandeer fàttali leen ko ñu àggale ko njiitu réew mi mu defar ko te defe naa ñu ngi ci yoon boobu incha allah. Mm-hmm. Euh, lan lan mooy xam jërëjëf xam nga bu dee ñun ñëpp dañoo am ay kilifa rek kenn ku ne da ngay déglu ki kàddu kilifa yi li munul nekk mooy xam nga fii man li munta nangu mooy nga nekk responsable ba pare bëgg wut responsable nga nekk responsable yow nga nekk ndaw ñu yónni la ndox nga dem di yónni keneen ndox mënu ma dégg loolu li mu mën dégg mooy kilifa yi ñuy liggéeyal ñu xam ne man maa ngi leen di liggéeyal keneen mi ngi leen di liggéeyal li ci des nag ay décision la ay discussion la ñu discuter nan la ñuy def mais ñoom ñi ngi ci liñ nekk man maa ngi ci li ma nekk l'essentiel léegi benn kilifa moo fi am ni ko président ni ko monsieur le maire Alioune Sall di waxee muy président de la république mu ne tamit li fi nekk mooy banque ñëpp mun nañu bokk benn marché mais sa compte loo ci deful doo ko retirer politique noonu la dégg nañ ko ministre leen l'intérieur li mu wax mooy man xawma kenn ku dul kuy xëy di liggéeyal président de la république liggéey boo xamante sénégalais yi dañ ciy gis seen bopp mu ànd ak njub moo tax nag ñu won ko ne am nañu xel am nañu xam-xam sunu suñuy réalisation ñu won ko li nga xamante ne président def na ko mun nañ ca wonee lu bëri parce que président bëgg na ku mel ne ñun te ñoom wax nañ ko waaw déglu kilifa yi waxtaan ak ñoom li ma gën a ñor tey mooy li nga xam président daf ko def ñu wone ko fu ne moom tamit mu xam ne ñun lépp lu ñuy def dañ koy teg ci njëriñu askan bi ñaan ko tamit mu may ñu nopp ñu wax ko problème jandeer mu régler problème jàndeer ñun duñ ko wax lu dul problème jandeer parce que jandeer moo ñu ñor en plus département bu mel département Kébémer ñu am fa kattan bi ñu fa am doole bi ñu am jandeer lañ fa am mu dégluñu lañ fa am ci doole ñu teg ko ci loxoom mu régler situation jeunesse bi nekk foofu parce que liggéey bii nii étudiants yi nekk Jandeer ñoom laa ñoom laa woo ñu liggéey ak ñoom fekki leen université ñi ngi liggéey te président dina gis liggéey bi aha jërëjëfal la euh, jërëjëfal sénégalais yi ñiy seetaan yëpp di ñaan yàlla na yàlla def jàmm surtout waa Jandeer jërëjëf ok